baax di rafetlu liggéey bu baax ñoo ngi déglu ñi fi mhm. jaar yëpp ak émission bi wax dëgg yàlla wax yëpp am na solo. jaajëf merci beaucoup. mu mel ni mu mel ni thème bi tey affaire mm. université la walla voilà comme euh, ni ma ko waxee woon sànq rek université jamono ju ñu toll nii. Euh, dañoo jël ndogal ne dañuy def cours en ligne ndax gis nañ euh, ci manifestation yi passé euh, lal ndaw yi laal nañu ko bu baax a baax séquencé nañu ko bu baax a baax loolee tax nag ñi ëmb boobu lay daara ju kawe ji jàpp ni daal li gën mooy ndaw yi toog seen kër ñu def cours en ligne waaye mu mel ni ndongo yi ñoom décision boobu lay d'accord ñu ci benn yoon ndax jàpp nañi matukaay yi tax loole am am na ci ñoo ñenn ci ñoom yoo xamante ni amuñu ko waaye tamit jàpp nañu loolee miinuñu ko mënuñu def cours en ligne ba tax na euh, gàntal nañ bu baax loolu nga xamante ni décision boobu nga xamante ni euh, seen ay euh, njiit jël nañu ko beneenu ponk bi bokk ci li nga xamante ni moom la waa Leral TV di ruuma daat daal di xam ne jamono juñ toll nii boo may tuut plage yi dinañ ko daal di tëj mu nekk lu nga xamante ni nag ñi ngi démb ci suñuy la ñu ko daal di jëlee beneenu ponk bi kuréel gi ni moo daal di oh, ëmb xeeti muy lenu mi ngi daal di sàkku ci état wu Sénégal ñu def ab enquête ñeel manifestation ak ñi nga xamante xamante ni eh, seen bakkan rot na ci ban jàngat nga am ci ponk yooyu lee eh, ok merci beaucoup maam Diarra. Mhm. zizi ba am na pro am na am solo trop. Mhm. Eh, sooy mhm. wër ci àdduna bi ba gis fu gën a jaxasoo si àdduna bi demal Sénégal. soo doon wax sax doo xam fooy commencé quoi xam université Cheikh Anta moom pour le moment bu ko tëjoon sax amul problème. Sénégal foog naa ne ñu tëj plage yi ak waa ONU ONU moom lu mu ci wax sax du sori mooy euh, moom comme ci génn léegi ni mu ko waxee rek noonu la demee quoi ñoom mënuñ mënuñ lu jënd seen bopp sax ba lu jënd Sénégal quoi. Mm-hmm. loolu moom moom nañ ko tege ne quoi. Mm-hmm. mais man li ma li ma xalaat daal mu jaaxal ma mooy balaa ñu nekk sax di wax affaire université ak ay affaire ay plage wala di lijjanti barki démb motagul deux semaines motagul trois semaines motagul un mois plus de seize personnes plus de vingt personnes ñu rey ko Sénégal ñu bëgg a jéggi yooyu yëpp nekk si beneen de si yaa mooy dégg allo allo oui maa ngi lay dégg bu baax a baax waa dama ne léegi Sénégal dafa mel ni mm-hmm. soo fa reyee xar soo fa reyee xar sax ngay ëpp problème que ci soo fa reyee nit suba suba soo faree xaru jàmbur. Mhm. doo rëcc. Mhm. mais nit nit yi nit yi ñu rey nii loolu waru waruñu woon jéggi benn paa te nekkuñ di lijjanti loolu. Mhm. li yi lijjanti yëpp dañ ko war a teg nële. sama waa ji lu mat lu mat ay seize personnes lañu ba ak vingt personnes ak doomu aadama nu mu fooree ñu rey ko ci affaire yu ñàkk fayda yi boobu léegi ñu nekk bëgg a dugg ci yeneen débat. man moom aw ma leneen lu ma ñor lu ma mën a wax lu dul que nit yi ñu rey Sénégal nga xam ne kenn xamut seen avenir lan la ñu waroon jural Sénégal. Mhm. foog naa deux ans ci ginnaaw xaw ma trois ans ci ginnaaw États-Unis yi gis nañu policier bi kooku ñu pësoon ba mu dee. Mhm. benn nit la. àdduna bi yëpp ko naqarlu ba nga xam ne li ci war yëpp dañ ko def ci saasa Sénégal nag ñëpp gis nañ ay nit yor yor tiire rey ay nit yu baree baree bare ñu ñu yooyu noonu yëpp fi mu ne ni nekk ci focaliser ci beneen beneen débat mm-hmm. su loolu paasee lu ma si bëgg a tegaat rek pour pour terminer foofu mooy mm-hmm. politique bii ñu bëgg a jël kenn ku ci nekk bëgg a waxaale soxla bëgg dugg ci affaire religion yeeg sëñ Muntaxa fii sëñ Mbay man si Mansoor expliqué nañu bàyyi kilifa yi te dem lijjati ci seeni problème mm-hmm. dañu dem ba nga xam ne tey lii leen dal yii nii yëpp coono yu metti yii bu doon am nañ ngor walla ñu am jom walla ñu am am am dret li leen sëñ Muntaxa lebal seen premier problème bii dem ba nga xam ne laa wax kenn ku si nekk dafa génnee som fekk la ba sa biir kër ñii mu fekk leen su hôpital yi kenn ku nekk bu dimbale la yónnee si Ousmane Sonko yónnee si Macky sàll dox ci def ci lim ci war a wax yépp kenn ku ci nekk mu digal la tere la def bu yemoon si loolu kese doy na mais taxul nit ñi bàyyi ko moo tax amuñu ngor moo tax moo tax seen yaradeku bi ñu yaradeku nii ak ñàkk am kilifa bi ñu ñàkk am kilifa nii moo tax lu metti yi sax di leen dal quoi dañoo généraliser bàyyiwuñu kenn. Mm-hmm. bàyyiwuñu kenn xeex bu ñuy xeex lii nañu jël affaire affaire religion yi ñu teg ko nële te continuer seen politique mais. depuis patriote patriote ñuy wax patriote patriote patriote bu dee ay patriote nañu dem ci armée bi ñu jël leen ñu dem guerre yi. tëdd rek yor sa téléphone nekk bitim réew yor sa téléphone di woote patriote la patriote la patriote la te ñii di woote nii yëpp am na ñoo xam ne am nañu këyit mën nañ dagg bii dem senegal taxaw xeex ñii ànd ak Ousmane Sonko amu si kenn ko nga xam ne tey gis nga ko ci kanamu manifestation yi mu taxaw ba jëlee ci benn blessure du kenn nag ñoom ñëpp laa wax. du ci kenn kenn ku nga xam ne manifestation yi gis nañ ko ci benn écran bu taxaw si di xeex amul. Mm-hmm. moo tax problème bi jaxasoo na jaxasoo bu nga xam ne man moom ñaari problème yi laa mooy nit yi ñu rey instant bii nii bu doon dañuy marche wala dañuy continuer di grève wala dañuy continuer di xeex pour ñu lijjanti loolu noonu loolu kese mooy combat bi pour l'instant. d'accord su loolu passé it ñi nga xam ne dañu nekk ci affaire kilifa yi. Mm-hmm. comme ñoom seen papa yi lañ gëm. gëmuñu kilifa gëmuñoo kenn nañ woo seen papa ak seen yaay ñu xeexal leen merci beaucoup. Ah. jaajëf mbokk moom moomule ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax voilà 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 Massour Gueye jaajëfal naa la mu ne pas noo bàyyi leen sama papa ñi nag c'est normal euh, c'est normal mooy suñu kilifa ñun ñëpp. donc c'est normal mu gisee loo xamante ne du yoon euh, voilà c'est normal mu mu mu regarder ñu. Euh, ñu ngi koy jaajëfal bu bu bu baax a baax 88 628 73 13 99 25 24 02 77 914 à 64 93 bu ko defee ngeen daal di euh, bokk ci li nga xamante ni mooy euh, waxtaan bi dinañ dem ak yéen ba 15 heures bu soobee yàlla beneen ponk bi nga xamante ni tey moom la ñuy waxtaanee bokk na ci le commissariat des Nations Unies droit de l'homme jamono juñ toll nii nag ñu ngi sàkku ñu ibbi ab enquête li nga xamante ni moom. moo xew ci réew mi eh, ci manifestation yi nga xamante ni am na fii ba ay nit faatu ci jamono juñ toll nii nag eh, ministre eh, Aïssata Tall Sall daat na koy tontu di xam ne ni daal lu nu mel fii ci Sénégal jotewut ak benn yoon lu ñeel liberté d'expression tey démocratie tey la daal di gën a am na tontu na kuréel gi nga xamante ni moo daal di mbu xeet yi ak ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci situation mu réew mi mu mel ni am na beneen bokk bu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam Euh, nuyu naa la bu baax a baax euh, euh, sëñ bi. tur beeg fooy wootee Koromak ci nuyu naa la. maa ngi fi alhamdulilah yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm alhamdulilah dama mhm. moom damaa retard moom damaa dugg ba sonn. waa tey gisuma la woon mais comme dugg nga rek c'est bien naka naka Maroc ñëpp ngi si jàmm. Maroc si jàmm bu baax alhamdulilah ñu ngi nuyu waa 2A TV di mhm, ñu ngi lay fay bu baax. alhamdulilah ah, di ñaan jàmm Sénégal aussi bu ànd ak sutura. Mm-hmm. Euh, ñuy àddu rek ci li xawaat Sénégal actualité yi mm-hmm. euh, li may mm-hmm. njëkkee mooy côté université boobu ñu bëgg a def euh, ñu bëgg ñu bëgg a tëj ñu di jàngee ci ci ligne bi ah, may wax ñuy sóoraal rek néew di doole yi ndax xam nga du ñëpp am boobu doole du ñëpp a ko am. te fi mu toll nii pour man loolu aussi euh, lu mën a ñàkk la vraiment lu mën a mën a ñàkk la te aussi bu ko nguur bu ko état bi mënee moytu aussi mu bañ koo def moo gan mm-hmm. ndax bu ko defee itam euh, dina am dina am ngaañitu bu bëree bëri bëri loo boo xamante ne maanaam ci néew doole la jëm rek mm-hmm. ndax du ñëpp mën a am connexion du ñëpp a mën a am euh, ordinateur kon loolu nañ koy sóoraale mm-hmm. voilà ma ñëw ci kii wu ONU aussi euh, dama yaakaaroon euh, état bi waru woon ak fii sax état bi pour man waru woon ak fii sax parce que euh, xew-xewu deux mille bi su ma juumul bu ci état bi teeloon a jël matuwaay jéem teel def ay enquête ba ñu xam fi dëgg féete képp kuy wàcc yoon ñu teg la ci yoon kon dama yaakaar bu ñu ñëw ba deux mille bi même bu problème amee sax dee bi dina wàññeeku mais deux mille vingt trois deux mille vingt et bu ñu gisee li mat treize morts quatorze morts dégguñ ci enquête dégguñ ci leen lu leer ñi nga xam ne dañoo deele ma leen di jaale au passage maanaam amu xamuñu sax ki rey seen i mbokk kon bu ñu toogee ba deux mille vingt loolu amaat man bokk naa ci li may maanaam bokk na ci li may ñaawul. Mhm, ndaxte man de toujours damay wax rek d'accord Sénégal. ñàkk na ay milliards yu bëree bëree bëri bëri diggante deux vingt ak deux mille bi Sénégal ñàkk na alal bu bëree bëri matériel yu bëree bëri waaye loolee loolu yëpp yëpp yëpp ay nit a koy liggéey nit moo gën a foofu te jàpp naa ne Sénégal tey bu fekkoon dafa perte li mat mille milliards moo gën mu ñàkk benn bakkan mu ñàkk benn bakkan parce que Sénégal li ciy dee ci ay nit te ba léegi nii daanaka enquêtes yi ba léegi wéyagul dégg naa ministre bi mais pour man ministre bi sax maanaam da cee retard bu bëree bëree bëri bari parce que lu lu war lu lu lu yegg la waroon a doon. Mm-hmm. waaw ah problème bi ñuy ñaan Macky Sall rek lii yëpp mënoon nañ koo teg ci suuf lii yëpp mënoon nañ koo teg ci suuf. même dëgg naa ñii naan ndax xibaar wér laa gi wérul dañoo bugg a dañoo bugg dañoo bugg a tijjee kii yi tefes yi. loolu aussi loolu aussi pour man bu amee defet bu rey lay doon encore defet bu rëy lay doon parce que boo vacances di waañ ñu nekk ci été ah hmm. ñi ni war a dem féelu ji ñi ni mën a dem nekkaat ci beneen beneen beneen beneen beneen beneen xalaat ñu bugg a jëlaat nit ñi gan leen a not loolu musiba lay yokk hmm. loolu problème lay yokk metti na loolu bu ko état bi mënee bu ko état bi mënee moytu hmm. euh, na ko moytu ndax gis nga pour man état bi ba léegi ba léegi ñoom dañoo def seen i bopp ñun ñu ngi année yi mille neuf cent soixante ak mille neuf cent te ñun ñu ngi deux mille vingt trois ñu ngi vingt et unième siècle mm-hmm. gis nga zone su tey zone su tey ku tukkeeg ku jàng ku gëstoog ñëpp a ci yem tey zone su tey maanaam ñu ñëw ñu new ñoo xamul lu xew ci àdduna bi parce que adduna bi léegi daanaka benn kër la rek lu xew rek ñun ñu xam ko. dëgg la kon état bi nañu xam ne tey fi mu toll ni population bi kenn mënatu leen a na mm-hmm. li ci ëpp solo mooy mooy dialogue dialogue état bi tey dafa war a tollu foo xamante ne maanaam dialogue rek moo koy arrangé lépp lu muy defi Sénégal na ko waxtaan ak population bi lépp lu muy lépp lu muy defi na ko waxtaan ak population bi loolu rek moo andi indi jàmm mais ay naxee gi forcé gi doole loolu jaxasoo rek lay gën a yokk lii la am li may wax buñ ko mënee moytu nañ ko moytu. am na solo ko salaamaaleykum wa rahmatullah. Ah, am na solo ko Martine di ñu woowee depuis Maroc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu.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 84 02 77 914 64 93 su ko defee ngeen daal di mën a bokk ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi comme ni leen ko wane woon cinq vidéo boo xamante ni ay ndaw fees dell ci li nga xamante ni mooy euh, plage yi waaye ca naka noonu mu mel ni euh, daanaka boo xoolee bu baax sax meeting lay daal di euh, nuróol ca naka noonu ab waxtu rek lañ wala ay waxtu sax lañ ci teg Leral TV génn ab xibaar di. Euh, euh, fësal ni rek suñu moytuwul daal euh, dinañ am interdiction jëmale ci li nga xamante ni mooy plage yi mu nekk mbir bi nga xamante ni daal ñu bëri jamono ji ñu ngi ciy àdduna jàpp nañ ni nag ñu nekk ci été waaye tamit ñu jëm li nga xamante ni mooy ay vacances ndaw yi nar a jël seen vacances te ku xam ndaw ndongo bu doon jàng ba noppi su paree rek dafay bëgg di dem ci plage yeeg yeneen yu nu mel. ñoo nag li euh, raam ni suñu um, li raam nii daal suñu ko bàyyee mu jàll euh, dinañ daal di rek tari lépp loo xamante ni dafa jëm euh, ci di fréquenter li nga xamante ni mooy plage yi loolee nag suñu naataangooy Leral TV ñoo ko daal di xamle beneen mbir bi bokk ci njàng mu kawe mi ci université Cheikh Anta bu dakaar ku ne xam na ni nag manifestation yi ñu weesu bokk na ci bërëb yi nga xamante ni daanaka euh, ndaw yi yàq nañu ko bu baax a baax ca loolee nag njiit ya jël dogal ne rek dañuy def cours en ligne maanaam ndaw yi toog ci seen i kër euh, su ko defee rek ñu leen di euh, jàngal ci seen ay machine ak yeneen yu nu mel ci naka noonu tamit ndongo yi ñenn ci ndongo yi ñoom jàpp nañu loolee xel xalaatu ko ndax nag ñoom tàmmuñu jàng boobu le waaye tamit am na ci ñenn ñoo xamante ni ci seen biir la ñu bokk te matukaay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 histoire bu yàgg la donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax que ni euh, dañoo bokk histoire bokk loo bokk genre nu ñuy dundee ba tax na saa su nekk rek dañuy nekk ci seen wet wàll fajiri gis nañu démb euh, Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp def na lu rafet a rafet euh, dem seeti leen waaye tamit yamu ci jël koppar jébbal leen ngir rek jàppale leen ci situation bi nga xamante ne nii ci lañ daal di nekk tax ku ne xam na ne jamono ji ci diiru weer la ñu daal di dagg seen signal yooyu lee ba ñu gis boobaak léegi nag askan bi ñu ngi jël seeni i koppar seen i dërëm ak ñaar dërëm di ko dem di ko yóbbul ngir jàppale leen ci li nga xamante ni mooy li daal ci seenu kaw ba tax na 2STV mi ngi feddaluwaat kóllëreem ci digganteem ak waa Walfadjri di leen masaw di xam ne ñu ngi seen ginnaaw bu baax a baax mu mel na mbokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. aleykum salaam. nuyu naa la bu baax mbokk mi tur beeg fay wootee. man tur bi la maa ngi wootee euh, Suède. d'accord Lamine ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw hmm. ak dama woote quoi parce que vraiment. lii mm-hmm. problème bi am Sénégal. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. affaire u affaire u Sonko Adji Sarr moo indi lii yëpp. moo tax nit ñi génn ci mbedd yi moo tax ñu rey suñuy doom yi nii ci mbedd Dakar yi. ak ci yeneen gox yi. loolu dafa ñaaw mënoon nañ ko éviter daal. Mm-hmm. parce que ñoom ca ba Adji Sarr waxee sax ci ci ci MC Niass ba ba ba avoué lépp te boobu lañ ko waroon arrêté bu jeex. kon mm-hmm. doowu ñaar si fii yëpp ba ñii di deewaat parce que deux mille vingt et un la xew ñëpp gis nañ ko ah ñu topp ci rek moo violé violé violé amu amuñu preuve amuñu dara ñu topp ci rek pour du dara lépp lu ko waral rek mooy pour jéem ko xañ ba du bokk ci élection yi di ñëw ci koo xam ne ay millions a dañu ci ginnaaw. di mm-hmm. ay sénégalais. bëgg mu bokk nga ne du bokk ah te yow biñ la fi bi 2011 nit ñi xeexal na ba nga ba nga ba nga ñëw ci ba nga jël pouvoir ah yow nga ñëw ba léegi nga war a tàggoo nga naan dañu woote pour waxtaan lu ñuy waxtaan amuñu lu ñuy waxtaan Sénégal moom dafa war a woote pour tàggatoo ne parce que jeexal na nu ne peut faire plus de deux mandats consécutifs waaw mais nga nga nga ne doo dem toog. nga bëgg a toogaat def bi troisième mandat loolu yenn yenn yi dafa dafa dafa rafetul dara daal. Mhm. mais lii yëpp daal li ko indi problème mu Sonko ak Adji Sarr la Sonko defu leen dara nañ bàyyi jàmm ak njabootam ji ñu kale foofu ci tëkkal góor je ne sais pas quoi dafay barrière mel ne kenn xamul lii lan la. Mhm. mel ne ñun du ñu ay ak Sénégal yi ñu xamee woon dëkku teraanga dëkku lépp. mais bu nguur gii fi ñëw dañu ñëw yàq Sénégal yëpp lépp lañ yàq. ñun Sénégal mosuñu xam nii kenn mosuñu xamee yu ñaar yi mais ñuy mais di rey xale yi ci mbedd mi di tiire ay fital ñi ñi nga xam ne ñoo dicté loolu ak ñoo ko def ñooñu ñëpp ñooy bokk àtte ëllëg te suñu borom ku ci nekk di nga di nga di nga di nga rendre compte ëllëg. Mm-hmm. waaw ba ku la tàmbalee sa biir bàmmeel àddu di nga xam ne li ma doon def yëpp adduna jaru ko dafa ñaaw man je suis j'ai le cœur meurtri. Sénégal ñëw fa sax ñëw du Sénégal tànk nii ñu nga fa man doon moo fa teg sama tànk sama xol moo jeex. lii ñu ñëpp ñu ngàbb partout dans le monde. Mm-hmm. ah ñu soxore nit ñi di leen ci iñaane am président boo xam ne kenn xamul benn genre nit la. danga naan kii bu sénégalais sax quoi. Mm-hmm. soxora soxora soxor ñu naan xale yi lii laa laa ñii yàqule seen kii d'accord ñoo toog nañ yàqu-yàqu yooyu yëpp munoon nañ ko éviter yëpp président de la république la. Mm-hmm. moom mi nga xam ne moom la dénk suñu lépp munoon na arrêté lii mais defu ko. def ko mu mu muy téesanteeg di def yoo xam ne affaire yu ñàkk fayda ba mhm. ñu ñëw ak si fii ci xale bu ndaw añu saar xaw ma je ne sais ñu téye ko utiliser ko pour daaneel Sonko nañ bàyyi jàmbur na ñëpp bokk ci élection yi moom na tàggoo geexal na na xam loolu te noppal nit ñi mhm. ah man bi mu demee ci sëñ Mourtala billaay dama foogoon ne su ñëwee dina seddal affaire yi wàññeeku mu ñëw di gën a dóor pour wane pour léegi dafay mel ni ne ñi nga xam ne ñaaw njort ak yooyu danaan xëy na sëriñ bi sax dafa bokk ci affaire fekk yàlla xam ne leen sëñ Murtada ndeysaan soo ñëwee mu ngi lay siñ di ree dafa sedd mm-hmm. ah mais kii kii du gor du gor dara Macky Sall waaw mais am na chance su tombé woon ay taawu bàyyi laxaat wala maam Abdou Aziz Sy Dabakh dañu taxaw carrément wax ko seen dëgg taxaw nag soo ko mënul def bul tegati sa tànk Touba bul tegati sa tànk Tivaouane waaye moom mooy kan du waaye yow mais dafa war a respecter kilifa diine yi. dëgg la te lii mu nekkee di ko def Sénégal dafa ñaaw. waaw sama xol moo jeex quoi. ndeysaan jaajëf xaaral ma bàyyi loolu daal bàyyi ñeneen ñi bëgg ñi bëgg a dugg. merci beaucoup merci beaucoup. waaw moom lay. paasan nag moom paasan moom ñu ngi koy ñaanal. Mhm. waaw lii mu ne ci dëgg la ne bu mu ragal dara. Mhm. ñuy teel mhm. léegi pour ñu dañu bëgg a tëj laa ñu nit ñi pour kenn dootul wax. am na solo nit ñi dinañ wax moomuñu dëkk bi tey moomuñu dëkk bi ëllëg te dinañu abal ci nii wala ci naa Mm-hmm. nit ñi sonn nañ ci moom daggali nañ ñu ñëw ay sagaru ay BRT sagaru teer ay sagaru foog ne loolu mooy tax nga toog on s'en fout saa ça nit ñaa ngi sonn sonn lekk ñu naan ko. waay waaye yow. mais mais lii dafa ñaaw dafa ñaaw ñaaw ba fu ñaaw yem. Mm-hmm. dafa ñaaw ba fu ñaaw yem. Mm-hmm. sama xol bi dafa metti ñu rey suñu doom yi nii foog ne loolu day day sedd ñu ñu indil ay yeneen wax dinañ def enquête enquête lan gis nañ yëpp ci film yi bu ñu kenn amerde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 Euh, li ñuy waxtaane bokk na ci li nga xamante ni rek moom la kuréel gi ëmb xeet yi di euh, euh, l'ONU di xam ni daal jamono yu toll nii li gën wala mi ngi sàkku ci état wu Sénégal ñu def enquête ci ndaw ñi nga xamante ni faatu nañ toll ci fukki nit ak juróom-benn suñu sukkandikoo ci état wu Sénégal ne fukki juróom fukki nit ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan dolleesi ko ak nga xamante ni faatu woon nañ ci atum 2021 voilà jamono ji ñoom ñi ngi sàkku ñu bi ab enquête tey di ñaawlu euh, euh, démocratie Sénégal bi ni mu delloo ginnaaw bu baax a baax waaye mu mel ni nag état wu Sénégal euh, ñenn ci ñi nga xamante ni ñooy waaye politique yi tontu nañ ko ku ci mel ne Aïssata Tall Sall tontu na ko ci loolee voilà mu mel ne beneen mbokk bu nekkat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maa ngi wootee Paris man la Tidiane Dione. Tidiane maa ngi lay jëfal bu baax a baax. en fait dama bëggoon euh, participer am na waa ju génn sànq nee na ñi nekk Europe nee na di wax xale yi ñu génn xeex. Mhm. te kilifa di ñu baax génne ci kilifa diine yi nan la ñu mënee génne kilifa diine ci li xew ci réew mi laa xamul. Mhm. kilifa diine mënuñ leen ci génne parce que kilifa diine bu ñu jekkoo Macky ñoom ñooñu ne ñu arrêté ñu arrêté ba pare Macky respecté wul dara ci ñu ko wax donc euh, mënuñ leen ci génne nit gis nga booy wax dangay wax dëgg te yàlla tax mm. kilifa diine yi bu ñu jekkoo mag yi ñoom ñoo ñu waxoon ñu arrêté ñoom ñu daal di arrêté léegi moom mu ñëwaat naa boo leen di xeex seen xeex xeex leen seen xeex ak ñu génn ci kilifa diine kilifa diine dañ leen respecté moo tax bu ñu nee ñu arrêté ñu bàyyi léegi Macky nag respecté wul dara continuer di def lu ko neex di dem ci kilifa di nañu wax dëgg rek gis nga man sam papa bu nekkul ci dëgg sax dama naan ah sam bii nekkul ci dëgg affaire bi amul ay kilifa diine fii yàllaa fi nekk yonante bi Sëñ Tuubaa lu Sëñ Tuubaa bi fi nekkoon tey Macky lu muy def nii du ko sañ a def Alaaji bu fi nekkoon Macky lu muy def du ko sañ a def nañu waxante dëgg waaw wasalaam ngeen baal ma nag waxe naa xool parce que daa am ñoo xam ne dañu <laughs> ngeen baal ma jërëjëf ah jërëjëf am na solo 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 à 64 93 ah, su ko defee yi nit ngeen daal di wax seen xalaat comme ni ma ko waxee rek émission seen kàddu ah, d'habitude damay dégg ñu naan parfois euh, del euh, Euh, del del del euh, regarder kii li muy wax bien vrai que ni dañuy bëgg di di regarder parfois dafa am ñuy ñuy déraper mais damay bëgg aussi di bàyyi nit ki ñuy wax li nga xamante ni mooy seen xel parce que bu ma génnee euh, ci logique boobu rek émission bi nekkatul seen kàddu ndax seen kàddu defe naa ni da ngay déglu li nga xamante ni wala da ngay taataan li askan wi di génn ci seen biir xol mu mel ne na beneen bokk bu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaw soxna bi tur beeg fooy maa ngi wootee Belgique damay leb tur bi nag quoi Belgique laay wootee. d' lebal nañ la ko bu baax a baax ban jàngat nga am ci li nga xamante ni mooy tolluwaay réew mi. ah mu ne tolluwaay réew moom bu dee dëgg rek. Mhm. bu dee wax yàlla dëgg dëgg dëgg rek rek Macky Sall moom est ce que c' est un Sénégalais. est ce que. Macky Sall est ce que moom Sénégalais la quoi est ce que Sénégalais la cent pour cent quoi. te mu nekk président de tous les Sénégalais. non Macky Sall du Sénégalais parce que nit boo nekkee da nga bëgg mais nga bëgg Sénégal Aliou Saba parce que parce que lii lii lii xew Sénégal li yow lii président war a nangu lii en tant que président yow war a mën a nangu lii quoi mais moom man Macky Sall bu xaw ma kan moo ko kan moo ko wax mu def toogal waaye ki ko mu def toogal ci ay nax ci ay ci ay nax la ko def mais Macky Sall mooy président xamante ne moo gën a décevoir un président yi né après les indépendances ci judd après les indépendances ñëpp amoon yaakaar yow yaakaar yow yaa ngi woon Sénégal indi beneen Sénégal mais yow yaa gën a yées sax gars yi ci jaar ñi ci jaar ne yàlla gën a yées Macky Sall amul dara lu mu indi Sénégal yi loolu ay problème c'est des problèmes c'est des problèmes mm-hmm. yow mars deux mille vingt et un yow fii lañu manifesté yow nguuram deexoon ba pare bu ci tegoon deux jours nguuram daal ah nga woote ko Touba woote woon gars yi gars yi dimbali la ba dëkk bi toogal mais yow mënoo jël douze nga taxul suuf yow yow koo xamante ne boo ko laalee fekk ba tànk soo ko bàyyi doon jàmm mais doo bàyyi jàmm nit ñi am jàmm. dëgg la waaw. ba pare lu ma jaaxle si loolu yéen itam vraiment seen seen métier bi da ngeen war a xoolaat da ngeen war a xoolaat. Mm. yoo xamante ne dañuy wax dëgg dañuy dox sële bi dañuy wax dëgg di di protéger seen intérêt eh, ñu ne faut pas de journaliste yi ñoom c'est des naafeq. Mm-hmm. journaliste journaliste da ngay wax da ngay toog wax analyse yi mais lan ngay def li nga wax kenn du ko raay ñëpp dégg xam na nga bëgg wax mais boo waxee lii sax fii nii da ngay wax lu exact. Hmm. te Ousmane Sonko nag maanaam gis nga état bi xaw ma ku leen dee gis nga buñ jéem a def ba pare dañ koy jàppaat bi baax moom mooy jeexam bi baax mooy final xam nga final mooy mooy yéen final bu jeex mooy matum tak amatul amatul leneen lu ñuy xaar. Hmm. koo xamante ne dafa violé dégg nga ngeen topp ay viol viol viol du kayit loolu bay jàmbur bu bu ngeen ko bu ngeen ko bëggee daan ngeen dem ngeen dem ngeen dem politique ngeen dem xeex mu terrain politique bu ngeen def yéen a xam. Mhm. ku ku gañ yaa xam. bi ngeen bëgg topp nit ñi ay nit ñaa ngi dee te lu ma jaaxal dañuy toog état bi dafa toog dafa wax ay BRT yàqu tili yàqu mais gars yi dee nag. Mhm. yow yow yow BRT kay doomu aadama mooy defar BRT BRT mun defar doomu aadama. on on appelle des on appelle mille état boo xamante ne chaque jour chaque jour des mesures chaque jour jël mesure mesure kañ lañ koy engagé kañ kañ ay nit di si dee di si yàqu Ousmane ko bàyyee jàmm dëkk bi dina ñëpp am jàmm boo ngeen ko dëkk bi tàkk mais loolu ngeen laalee. Hmm. ba pare ay caaxaan kese nañ te dëkk bi si jàmm xoolee instant tabaski bi ñu ñaa ngi amuñu lu kenn xamagul looy tabaski kenn kenn amagul lu leer Sénégal nit ñi am nañ seen jabar amay doom amay rakk amay sœur kenn xamul tey fu ñu ñu war a jëlee pour pour tabaski fan fan nga ko jëlee fan fan fan jàpp nañ ni jaar nañ defar nañ ñëpp ay walaakaane ñëpp Sénégal ñëpp dañuy yelwaan man su ma ñëwee vacance ba mooy ñibbi chaque jour nga tuub si kaw télé bi ay magum jëm yoo xamante ay nit yu normal ñoo la ñaan hmm. ma yóbbu kër ga mais lan mais mais lii mënul continuer ça peut hmm, hmm, jeexal na man su may wax Sénégal sama xol day jeex sax quoi billaay tellement que lii déception la ma si yàgg fii mosuma xalaat jamais rêvé ça jamais ay problème ay raykat nit xool nervi yi état bi moom ñoo gën a woy di ñëpp naan nervi yi ay naan c'est mooy jël volontaire dëkk di volontaire di ñëw fu ñu jëlee armes yoon léegi léegi yi fu ñu mm-hmm. bi dañuy wax ba pare weddi wax ba pare weddi seen bopp xoolal sa bopp pare wax si micro bi yaa ngi yor sa vidéo si ginnaaw mu lay weddi mais après lii ban état la lii lii est-ce que lii état la lii nañu bàyyi caaxaan Sénégal dëkk la Sénégal fi nga bëgg dugal Sénégal xeju fa li ñu bëggeen Sénégal Sénégal nekk lu mu attan ñun xamuñu lii ñu jàmm lañu xam julli jaamu yàlla sant yàlla màggal gàmmu ziar ñu bugg ñu dugal si su affaire yoo xamante ni ay affaire de àdduna mais problème bi nag gis nga juge nag juge nag ñoo ëpp problème juge yi ëpp problème gis nga Macky Sall mi leen mi leen di defloo ñoom gis nga ñoom gis nga buñ dee bañ dugaleen si biir bàmmeel sotti leen suuf bu bari dem Macky Sall mënul nekk foofu de seeni jëf moo leen fay fekk. bu fekkee ne mën nañu engagé lii mm-hmm. li ñuy man nañ ko engagé. man maa ngi maa ngi lay bàyyi soxna Diawara ko man sama xol dafa jeex Sénégal. jaajëf ndeysaan Marcel ñu ngi lay baax a baax billaay dama loo métti. dama loo métti bu a baax billaay dama loo métti. Sénégal am naa fa sama papa sama ñi foofu sama jabar samay doom mais lii nii c'est servir n'importe quoi maintenant. Mm-hmm. servir di n'importe quoi. Mm-hmm. la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

Euh, nekk li nga xamante ni rek mooy euh, Antoine Félix Diome annoncé na l'ouverture d'une enquête sur les vidéos yi nga xamante ni gis nañ fa ay euh, civil yor armé wu di tiire ci askan bi waaye tamit yor seen oto ci naka noonu jàpp na ni jamono ji ab enquête dinañ ko te daal di tijji loolu nii jamono ji ñu toll nii ñu ngi daal di teg li nga xamante ni rek mooy. Euh, ñu ngi teg li nga xamante ni mooy euh, pression bu méttee méttee tawu Sénégal ngir ñu daal di ibbi enquête waaye it ñi ngi ñaawlu doxalinu nguur gi euh, ci li nga xamante ni rek mooy ñàkk démocratie bi nga xamante ni ñu ngi koy commencé nemmeeku fii ci Sénégal waaye tamit ci ay ndaw yi nga xamante ni ñu ngi faatu te enquête du tijjeeku mu mel ni am na mbokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum kooku soxna Dia. man la man la boobu man la sëñ bi nuyu naa tur beeg fooy wootee. waaw ñu ngi lay maa ngi wootee euh, Espagne. Mm, delloo ziar bu baax a baax ñu waa Espagne ñëpp a ngi si jàmm. waaw non waaw ñu ngi jàmm alhamdulilah. Mm-hmm. waaw dama bëggoon bokk ci waxtaan bi. d'accord yow rek lañuy ñuy déglu. waaw maanaam comme situation au Sénégal rek. Mm-hmm. maanaam Sénégal instant yi li muy dund moom kenn xamul nan la quoi man li ma gën a métti ci affaire yi mooy maanaam affaire maanaam kilifa affaire kilifa diine yi kenn mu leen a jële ci ci ci ci Sénégal parce que politique ku jóg di politique di ngay dem ci ñoom di di di di di di wuti ñaan di di leen nemmeeku ji mm-hmm. waaw kooku nag kooku nag soo demee ci moom mu lay mu lay diggal lii lii njariñal réew mi defe naa boo fa jógee danga ko war a jëfe mhm. waaye boo ko jëfewul rek loolu mooy indi problème yu bari yi xew nii dëgg waaw léegi nag euh, maanaam euh, bu bu ñëwee ci affaire kii euh, Antoine Diome mhm. day génn di def ay communiqué am te te maanaam maanaam ñoom avant ñuy def communiqué ñoom duñ xalaat li li ñu war a communiqué de ñoom dañuy génn rek wax fekk na ñoom sénégalais yi romb ñoom la ñuy wax sénégalais yi romb nañ foofa. Mm-hmm. xam nga bu bu Séné bu ñëpp ne jàkk jant bi gis ko mu ne fàng yow nga nga nga jóge fa ne leen lii du jant aw biddiw la loolu dañ rek bàyyi la. Mm-hmm. parce que dañuy xam ne yow li ngay wax nii tegul fenn. Mm-hmm. waaw léegi nañuy wax lu lu lu mën a dugg ci bopp Sénégalais yi Sénégalais yi dañ windool seen maayanu Sénégalais yi dañoo dépassé ñoom si si li yi seen i wax. Hmm. li yëpp nag nguur gu nguur gu jaaxle nguur gu gu gu jaar yoonu daanoo moo mooy def nii rek parce que xamatu lu ñuy bu ñu demee bay xalaat naan dañuy tëj place yeeg yëpp euh, euh, te bi jub si nii loolu loolu maanaam jaaxle rek mais nguur gudd nguur yàlla dañ ci jógee nañ gëm yàlla yàlla moo leen joxoon nguur yàlla da koy jëlaat yàlla da koy yàlla lu ma maa lay jox nguur waaye maa koy su ma koy nangu dama koy foqar ñi mm. kon xam nga ne moom yàlla moom lu muy fa lu yàlla di foqar ñi kay wax dëgg yàlla loolu kay war nga xam ne moom day jeex mm-hmm. te jàmm Sénégal li ko mën a indi mooy leen ñett yii rek yi chaque jour chaque jour nit wax ko Macky Sall mm-hmm. ñett jàmm Sénégal ñett yi moo ko mën a maanaam moom mu taxaw génn carrément ne man nekkuma candidat wut ab candidat daam ci benn bokk yaakaar Khalifa Sall ak Karim Wade Ousmane Sonko ñoom ñëpp lim lim leen bëgg a teg mu dindi ko teg fële. Hmm. ne ku bëgg a bokk bokkal. Hmm. organise élection yu leer loolu rek la mën a def loolu dong la mën a def Sénégal jaar yoon loolu dong mooy indi jàmm ji bu génnoon wax ne man bokkuma rek jàmm day ñëw Sénégal Sénégal luñ ko mere mere mere moom bu génnee wax lii rek. jàmm day am te ni boroom xel yi chaque jour ñu ngi koy xalaat ñu ngi koy wax ci plateau mais nag boo mooyee mooy ji fi nga jàpp rek yaakaar na doole ji yow doole ji yaa arme yaa lépp doole mais yàlla doole yàlla moo ëpp doole yàlla bu nee day samp nit kenn mënu ci dara. dëgg la da ngay sonn rek. Mhm. wallaay da ngay sonn rek kenn mënu ci dara. Mhm. mais lii dong la Sénégal yi xaar ci moom lii dong la Sénégal yi xaar ci moom nag génn moom ne man bokkuma sam wut candidat am jeex na mhm. affaire bi compliqué wul quoi. am na solo. maa ngi jég maa ngi jég lu baax ci kàddu yi. maa ngi jég lu baax ci kàddu yi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf bu baax a baax voilà mi ngi noonu defe naa ni euh, sax li ñu